fidèle internaute suñu gaal 24 mbégte la ñuy am saa su nekk ci topp gi ngeen ñuy topp tànneef gi ak kóolu tegi te di leen jaajëfal euh, ci li nga xam ne moom moo di euh, suivre gi ngeen di suivre suñu ay euh, programme ci ay plateau yi nga xam ne moom la ñu amal biir suñu gaal 24. te lépp doon tolluwaayu réew mi ñuy waajal li nga xam ne moom moo di ay euh, élection ah, donc ñu gis ay doomu ndaw yi réew mi ñi nga xamante ne nii ñoom postulé nañu ngir jéem a suqali seen gox euh, jàpp ci li nga xam ne moom moo di développement réew mi euh, bu ñu waxee ci développement réew mi nag daf ci am ñoo xam ne ay ndaw lañ ñu ràññee leen lool ci li nga xam ne moo di politique bi waaye itam seen gox joxoñ leen baaraam ci lépp li nga xamante ne nii rek moom moo di ci lu baax donc ñu toogaak tey ki nga xam ne moom moo di Go Faye euh, mi nga xam ne moo jiitee mouvement réaction bu ñu ne Go fay nag doon doomu parcelle yaakaar naa ne ràññee ngeen image ci biir suñu Sunugal 24 ñu amaat mbégte bu baax a baax dalalaat ko fii ci ay ponk yu ñu war a waxtaanee te lépp doon politique Go ñu ngi lay nuyu. <laughs> ñu ngi lay fay Eva di nuyu téléspectateur Sénégal 24 yëpp. et comme j'ai l'habitude de le faire di nuyu waa Sénégal waa Dakar mais particulièrement waa Parcelles Assainies. merci beaucoup Go mbégte la ci ñun ñu dalal la fii tey ci biir Sunugal 24 euh, gis nañ ne que euh, sa candidature mu mel ni da nga dëggal sa bopp ci élection locale yi euh, ndaka ngay dundee actuellement ak wàccaayu locale yi. waaw tranquillement tranquillement effectivement dañ dëggal suñu bopp parce que dañu <clears throat> dem ak doomu Parcelles dans une coalition qui s'appelle avec Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes. Mm-hmm. demal suñu bopp fi toll nii nag comme ni ñu koy dundee moom comme si comme tout le monde le vit ah, mooy nekk en campagne di dugg di dem si marché yi di wax ak euh, waa dëkk bi di dugg si kër yi di dox ay mbokk di wax ak ñoom di leen xamal ne euh, euh, période bi dafa am période yoo xamante ne dafa am ay enjeux enjeux yoo xamante ne surtout jeunesse bi. élection yi élection jeunes yi la ñu war ñu rater de l'histoire war nañ tànn hmm. pour ñu mën a éviter erreur nga xamante ñoo fi amoon dans le passé tànn koo xamante ne bi ñor ko nga toog fi 14 ans defoo fi lu bëri il faut qu'on choisisse bien et puis il faut pas qu'on se d'élection

que ñu xam ne que Go Faye voilà ñëw na te dafa war a liggéeyal askanam. waaw effectivement c'est une excellente question en fait suñu cible moom parcelles yëpp la mais xam nga configuration euh, dëkk bi da ngay xam ne jeunes yi ñoo ëpp. te jeune mooy defar dëkk moo tax dans toutes mes communications sama message yi may envoyé c'est des messages qui s'adressent exclusivement à la jeunesse mais ça veut pas dire pour autant que ne mag ñi bàyyiwuñu leen xel mm-hmm. mais jeunes yi daal xam naa ne comprendre ne il faut que ñu dugal suñu loxo si ni ñu gérer suñu gox même boo deful politique sax mais il faut t'intéresser à la gestion communale naka et puis ñu def diagnostic aussi parce que fi toog 2014 ko fi teg la waroon def bilan jusqu'à présent mënuñu defaral bilan ñun nag en tant que citoyen war nañ mën a toog def contrôle citoyen boo xamante ne ne nga fi def boobu léegi par rapport ak li nga diggee woon budget fu mu toll loo si def ak ainsi de suite c'est sur cette base là nga mën a sanctionner ko positivement ou négativement et je pense que la majeure partie de la jeunesse a décidé waaw en fait, moi, je suis un citoyen actif. Je ne me considère pas ça comme un homme politique, un politicien autant pour moi. acteur politique. boo xamante ne euh, dañu bokk ci dëkk bi jàngee Sénégal bi ñu nekkee xale dem université état du Sénégal di am ay koom-koom yoo xamante ne daf ko investir suñu éducation. kon bu ñu demee ba yàlla war wërsëgal ni ba ñuy liggéey ba ñu ñuy fay ay xaalis ci entreprise yi war nañ mën a delloo njukkal état bi. non seulement en payant des impôts rek mais ñu dugal suñu xam-xam suñuy compétence yi nga xamante ne le privé da koy jënd si ñun mm-hmm. ñu teg ko au service de notre commune de notre pays à euh, la la commune ou bien en tout cas institution publique yi te tey nag euh, ñun suñu cible mooy exprimer wu compétence yi nga xam ne moom lañ def si wàllu privé ba ñu am fa ay ay station am fa ay postes yoo xamante ni postes yu am solo la mais bu ñu ko jàppee indi ko si mairie bi ànd ak ay doom Parcelles Assainies yu que on est un groupe boo xamante très compétents ñu am ay convictions des patriotes ñooñu bu ñu leen andee ci conseil municipal bi je pense qu'on pourra faire un excellent travail ci cinq bi. Euh, benn lam du yëngu nga am ñoo xam ne ñoom nga bokkal la li nga xam ne moom moo di Parcelles Assainies mën nañ cee boole ki nga xam ne moom mooy actuel maire bi mën nañ cee boole peut-être ñeneen ñi nga xam ne ñoom itam gox bi soxal na leen ba ñu ñëw bëgg a bokk si ci xëccoo bi euh, nga gis ne que ñooñu peut-être am na mbooloo mu mu topp ci seen ginnaaw ce que dina yomb ci yow tey li nga bëgg a nga atteindre ko facilement. absolument absolument bu nekkee euh, ñaar ñi ngay wax genre xeet yi mooy ki nga xamante ne moo fi maire c'est notre euh, c'est notre principal adversaire mm-hmm. parce que euh, ñun nekkuñu si ñu nga xamante ne élection bi dafay des ba deux mois rek wala un an ñu créé suñu mouvement dem élection nee naa la nekkoon nañ candidat ànd ak suñuy ndaw pour wane ne ndaw ñi am nañ seen rôle à jouer si li nga xamante ne mooy gestion publique ñu demaat si élection député yi jàngaat mm-hmm. cette fois ci li ñu doon jàng de 2014 dañ ko war a tari mooy c'est-à-dire ñëw gagné élection yi doxal te mooy def suñu différence ak ñeneen ñi mm-hmm. c'est-à-dire l'expérience qu'on a le vécu qu'on a l'historique politique qu'on ak euh, le bilan social bi nga xamante ne moom lañ am parce que def nañ ay actions yoo xamante ne à chaque fois dans le domaine de la santé de l'éducation du sport on a montré que boole ñu fi tegee daal mën nañ ci def ay ay affaires yoo xamante ne daal euh, dina jariñ Parcelles Assainies c'est ça qui fait la différence moo aujourd'hui les statistiques les les les les sondages lépp dañuy wane ne ñun ñooy gagner élection yi te maire bi ku ne xam na ne ñëpp kenn bëggatu ko passer Assaini donc moom sax yàlla xam ne c'est pas euh, euh, ne ci élection yi sondage mi ngi wane ne que doomu parcelle la euh, parcelle kii la ñuy choisir mais ci jamonoy investiture yi est-ce que deg nekkoon benn problème wala mu nekk benn difficulté à li nga xam ne moom moo di say formalité nga remplir ko doo ci am benn problème. problème wala ci côté niñ ko waxee yéen liste yi nga xam ne rejeté nañ ko est-ce que yow dundoon nga loolu. non ñun dunduñu loolu nag parce que on de l'expérience bi mooy sunu troisième élection bu ñu dem donc ñi nga xamante ne te problème yooyu lañu am ñu ngi doog dem élection et voilà ñun ñoo s'entoure bien d' experts yoo xamante ne seen liggéey loolu la et puis euh, on aucun problème ci kàll boobu. d' dëgg yàlla. léegi ñu des ci politique ba tey euh, ci jamono jooju am nañ fi ay coalition yoo xam ne jot na juddu Sénégal gis nañ fi wàllu Sénégal gis nañ fi gëm sa bopp gis nañ fi yeewi askan wi yow fan nga féete. alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes mooy àndu nga xamante ne ñun ay indépendants ñoo ko composé ay personnes ressources des personnes de valeur yi partagent les mêmes principes ñu ànd tënku ku nekk toog sa gox pour exprimer wu ànd ak ay doomu gox bi boo xoolee Parcelles Assainies ñun rek ñun ñoo fay ñi nga xamante ne wéeruñu fenn sunu Euh, yéene bi ñu am si Parcelles Assainies si doomu Parcelles Assainies lañ ko bëgg a teg duñ ko teg si barke kenn koo xamante ne dëkkoo Parcelles Assainies xamoo Parcelles Assainies yeewoo fa xamoo les réalités de la commune loolu nag c'est un avantage comparatif par rapport ak ñeneen ñi nga xamante ne yàlla xam na ne bu ñu amuloon fu ñu wéeru duñ dem élection parce que mm-hmm. amuñu mën-mën bi amuñu compétence bi amuñu sañ-sañ bi te amuñu euh, expérience bi nga xamante ne tey mën nañ taxaw ne jox leen ma dëkk bi ñu jox leen ko c'est-à-dire c'est bien de faire des comparaisons du question de fëgg suñu dënd mais pour ñu leeral askan bi nga xam ne daf euh, euh, doon presque à la saraxo pour ñu ñëw jiital leen seen liste mais pourtant on a décliné ne dañu bëgg a ànd ak doomu Parcelles Assainies yi mm-hmm. donc loolu day wane rek sur une base solide ko teg am nañ euh, foo xamante ne nañ ko mm-hmm. te ñun dañu gëm ne le message qu'on a fait passer de 2014 à 2021 les jeunes se sont lapp se se se se ce message là et puis nit ñi comprendre nañ fu ñu génn ndaw ñi dañu naan vous on a compris le message que vous nous avez envoyé. élection yi les jeunes ne vont pas se tromper d' élection du élection présidentielle du élection député élection gox goxaan la ni ko gars yi di nawetaan la. Mhm. c' le rendez vous d' un avec sa communauté. Mhm. te gars xam nañ ne depuis 2014 maa ngi waxtaan ak ñoom. Mhm. xale laa woon 2014 mais léegi màgg naa te xaay pare nañ pour eh, andi le changement xale bi màgg na te dafay ñëw jël li nga xam ne goxamu ko moom pour joxaat ko gox bi. defaat gox bi waaw. macha allah donc euh, yéen ñu ñu dàpp di ñu seetaan ci biir Sunugal 24 <laughs> invité de la rédaction tey euh, Go Faye la daloon borom mouvement réaction euh, go sa gox doon gox bu nga xamante ne nii ka fa nekk def na fa 14 ans jamono ji dina dina xaw a metti surtout mu fare ci côté président Macky Sall. dal ka nga ñëw foqati ko ci ay ay ay loxoom est-ce que loolu tamit xalaat nga ci. waaw victoire day gën a neex rek day gën a reex xam nga tey mbër mu ndaw daane mbër mu mag tool ko si dëgg dooleem si la coow di gën a bëri. Mhm. dafa am benn benn benn wax bu ñuy wax ne le ciel il mu nekk au assez haut dans le ciel pour tuer un prince. Mm-hmm. jël bi fii lay gën a gaawee parce que bu ñu ko daanoon fekk mu faible dañ naan mbër mu màgget nga daan mais tey comme dafa am support ñi ngay wax noonu euh, jàpp naa ne bu ko daanee dinañ xam ne on mérite et puis on a notre rôle à jouer dans ce pays là. et je pense que si recomposition politique bi am personne ne parce que noonu Parcelles waaye xam nañ ne 14 ans la fi def aujourd'hui il préfère son. poste de PCA au port avec un excellent salaire boo xamante ne du si may kenn. que son poste de maire des Parcelles Assainies ñun nag dañ ko ne comme sa poste bi ñu la éli eh, nommé moo la gënal bi ñu la élire delloo ñu sunu sunu mandat ñu teel ko sunu bopp parce que ñun ñoo ko ëpp compétence ñoo ko ëpp mën-mën ñoo ko ëpp yéene ñoo ko ëpp historique ñoo ko gën a am yéene si Parcelles Assainies. donc bu loolu amee sa gis-gis lan moo tax nga xalaat ne que war naa mën a ñëwaat di bokk ci élection ce que doon loolu du bàyyi xale yi ñu dem moom mu dem ci waaw xam nga en fait moom sax dafa ne woon du bokk si élection wax dëgg yàlla mais xam nga c' des gens la politique. Mm-hmm. seen politique waaw seen deret la te xam na ne s'il perd son poste de maire mais demain demain Macky Sall na ko dàq si poste mm-hmm. PCA bi et puis il se avec quoi et tout waaw euh, je sais pas xaw ma mm-hmm. euh, affaire lañ ko bindal affaire bi xaw affaire lay gérer part affaire <laughs> politique. affaire bi mooy Parcelles Assainies. non non non affaire Parcelles Assainies affaire la moom moo tax ñu jóg pour jëlee ko si loxoom mais quand il s'agit de critiquer la gestion il n'a rien fait aux Parcelles Assainies imaginez madame comme ni ñu koy waxee souvent mm-hmm. rajo municipale da ko tëj centre socioculturel ko euh, école municipale mu tëj ko Parcelles dire amul plateau médical sunu terrain depuis 9 ans ñu koy doog a ubbi c'est-à-dire amul lenn boo demee sunu tali yi c'est-à-dire tali yi kenn du ko rafet sole Parcelles Assainies foo dem si kamb yi boo demee si euh, marché yi day saaga sunu yaay yi di daa di daa daaneel seen kees c'est-à-dire même bu nekkee sax nekkuñu dans les règles y une manière de communiquer avec des populations. ça mais n'empêche que n'empêche que loolu yëpp am na mais tamit du ñàkk peut ba mu toogee 14 ans ba léegi mu samp parcelle loo xam ne dañ koy joxe ne moo ko fi def. permet permet moi de te faire l'historique ci 14 ans yi. Mhm. lañ ko fi andi mu dem 2009. 2014 euh, mu ñëw mu xam ne il est en perte de vitesse si la l' avènement de Khalifa ak problème yi yooyu xam Sénégal bëgg victimisation Khalifa Sall nekkoon mm, nest le chouchou de Dakar. Mm-hmm. mu ñëw transhumé dem si Khalifa Sall ñu taxaw yàlla taxaw Sénégal loolu moo taxoon mu gagné waat élection yi moom xam na ne à lui seul il peut pas des élections piège boobu la bañ mu amaat parce que aujourd'hui la ngaa a waat si état bi mais heureusement même les gens de parce que ñoom ñu ngi proposé woon ñi nga xamante ne ñoom la si ñu bëri mhm. ñi ko mu dugal leen ñi ko neexul mu dugal leen il ne les fii ne dañoo sàcc ay élection ñooñu bu ñu amee fulla ak fayda ñi nga xamante ne ñooy ñëw si ginnaaw gis nga élection yi Parcelles ñoo ko téyel seen bopp duñu kenn du fii di ñu tànnal candidat parce que ñi nga xamante ne ñoo fi ñëwaat di tànnal beneen candidat ñoo ko fi tegoon te ñooñu on pas tomber dans le même piège ku mu munti doon nag si dëkk bi Parcelles Assainies dañu jël décision teel ko suñu bopp. te xalaat nga ne dina yomb ci yow. lu yomb la liggéey bu yàgg la te si dëgg lañ ko teg ñun duñu jënd nit duñu jënd achat dignité par exemple temps yi am na ay ñoo xamante ne mais xamuñu Parcelles Assainies dëkkuñu fa mais fay dugg guddi ak seen maretu xaar di jënd dignité jeunesse bi. Mm-hmm. dem suñu yaay di jënd seen ngor. bu leen ko dara jaral parce que am na loo xamante ne fii lay yem dañ lay jox benn cent mille benn deux cent mille nga nekk ko si ñaari fan mu jeex. Mhm. élection yi bu passé ñu nga toogaat di souffrir cinq ans te mhm. kooku du fa tegati tànkam. Mhm. mais jeunesse bi comprendre nañ ko sunu yaay ak sunu papa yi ñi sàcc alalu askan bi ñëw di leen ko jox neen ko jël jeunes yi nga xamante ne amuñu gëm-gëm ba topp ñooñu. di lambar lambar yi seen ginnaaw pour am tuuti weccet ñooñu dañoo ñàkk ngor. nag am na ñoo xamante ne am nañ ngor am nañ fulla am nañ fayda te malgré les propositions on a on a tenu pour euh, faire triompher da ngay changer système ci campagne bi pour a xoolaat beneen a réussir li nga xam ne moom moo di campagne bi convaincre à 100 pour cent déjà convaincus xanaa dañuy ñëw rek def formalité yi yàlla xam na ne. tey tey tey dama gëm ne au soir du janvier incha dañuy gagné te du nekk du rëy si ñun nag. Mm-hmm. parce que liggéey de luñ liggéey lu yàgg la di dem ak waa Parcelles Assainies bu tawee. bu mën a amee ñun la ñuy gis bu méttee ñun la gis ba sax am na ñoo xam ne bu ñu amee difficulté dañ naan gisuñu góo fay te pourtant maire baa ngi fi. Hmm. mais loolu hmm. du politique a tëddee noonu tamit. wala da gis na ñooñu moom ay politiciens yu yàgg lañu non politique tëddeewul noonu politique sax lu rafet la. Mhm. mais ni ñu koy defee moo ñaaw moo tax bu ñu gisee kuy doxalee noonu dañ koy dañ koy dénoncer. nañ bàyyi loolu et puis ndaw yi nga xamante li ma si gën a métti ay ndaw yoo xamante ne dañu war a ñax wuti ay compétence dem liggéey topp leen di lambar lambari seen ginnaaw ñu leen di comme ay petits enfants nga gis ko xamante ne da nga naan yooyaay leader bi mu taxaw sawet wet di kenn taxaw sa di la xas naan la ëppale woo kii ëppale sa à dire ñu nangul nit ñi et ñu bàyyi soxor bi ak ñaanante bi nit ku si nekk ñu delloo li nga moom te Parcelles Assainies pare nañ pour delloo la liste avec li ñu moom. parcelle ban côté nga yaakaar ne que mooy jafe ci yow pour nga jéem leen am. benn jafewul ci man Parcelles Assainies benn bloc la jeunesse bi la cette jeunesse bi nee nañ waaw. jeunesse bi nee nañ waaw kon kon sa xel dal na xanaa. <laughs> yàgg na. <laughs> donc dañuy wax ci politique euh, de de de manière euh, générale euh, ci li nga xam ne moom moo di politique gu Sénégal bu ñu nee politique gu Sénégal dañ koy dooree ci kàddu yi président Macky Sall ay fan ci ginnaaw doon na wax ne dafay delloosiwaat poste première ministre ndaka nga jàngatee loolu en tant que jeune bu nga xam ne am na fu mu teg bëtam ci li nga xam ne moom moo di réew mi. waaw man dama mës a gëm ne premier ministre boo xam bu ko waroon bàyyi la. peut-être que bu mu koy def il avait ses raisons mais il s'est rendu compte que c'était pas possible et puis la grandeur d'une personne se mesure à sa capacité de comprendre que il s'est il s'est trompé donné et puis il faut pas que les gens en, en fassent un nga fii débat politique bi lu ñëw rek ñu def ko débat hmm. yow kii da ko ne woon lii baaxul moom mu insister bu demee def li nga wax nga nga ne waxoon naa ko c'est-à-dire ça n'a pas de sens man jàpp naa ne euh, le poste de premier ministre lu war a teg la et puis dina baax si si fast bi ñu doon wax. gis-gis kan la war a mën a teg comme premier ministre fii. ku am ay compétences rek parce euh, Sénégal mais bu nekkoon suñu sago mu jógee Parcelles Assainies. Mhm. waaw mais ñenn ñi dañu nekk dañu jël koo xam ne boo yënguwul ci politique mais est ce dina yomb bu ñu fi tegee koo xam ne newul ci politique est ce nga xam ne ñoom la jiite bu boobaa teg. non non non loolu moom ay wax caaxaan la premier ministre des politiques dans le monde politique moom tout le monde fait de la politique donc euh, question de compétence bi la ñu a jiital rek ndax mën na ko ndax mën na ko xamante ne il fait l'unanimité mhm. c'est qui qui peut peut ne les se retrouvent mhm. en lui dégguñu ko si yenn wax yi nga xamante ne tous les ministres dinañ mën a ñëw vers moom mu coordonner et puis rendre compte au président mën a suivre les projets de l'État c'est c'est ça c'est ça le rôle d'un ministre d'accord d'un premier ministre autant pour moi a si dëkk yëpp mais à moins que mu nekk des des des des royaume ak yooyu mais même royaume sax dañuy am dañuy am premier ministre donc euh, jëm na ko gis na ne par rapport ak yeneen engagement yu am à l'international par exemple l'Union africaine dafa war a dem président mënu ko satisfaire il s'est trompé il a reconnu qu'il s'est trompé mu delloo siwaat ko man je pense c'est pas un débat Le président Macky Sall préside un conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à l'encadrement et la gestion des recettes mu doon loo xam ne ñu ngi wax ci wàllum pétrole ak gaz recette u 700 milliards yoo xam ne Sénégal moom lay am par an ñenn ñi nag ñu ngi ciy def débat comme quoi que loolu dafa ndaw ñeneen ñi peut-être ci seen gis-gis ak ni ko président Macky Sall waxee bu mu leen def problème ba kenn ku nekk di ci wax ndaka nga jàngatee loolu 700 milliards par an ci pétrole nga xamante ne nii amaana ko Sénégal mënoon na ci bénéficier wu lu loolu. bon en fait xam nga euh, moi je suis expert en truc euh, ay affaire pétrole ak yooyu mais en tout cas xam naa ne dañu war a optimiser suñuy recette mm-hmm. muy si wàllu pétrole muy si wàllu c'est-à-dire si si domaine yëpp yi nga xamante ne muy si pêche bi ainsi de suite les termes des contrats dañ ko war a revoir c'est pas seulement au Sénégal mm-hmm. mais l'Afrique dans sa globalité doit revoir les termes de l'échange c'est-à-dire mu nekk échange yoo xamante ne nit ki si nekk gagnant gagnant lay nekk mais malheureusement je sais pas ma dañu amul ay experts ci affaire de signature de contrat yooyu des professionnels yi nga xamante ne xam nañ les contrats pétroliers ainsi de suite je pouvais pas je pouvais pas m'aventurer sur le montant mm-hmm. mais jàpp naa ne daal Macky Sall président Macky Sall autant pour moi euh, ak jeunesse bu mu jeune ak jàng bu mu jàng war nañ mën a signer de contrats yoo xamante ne Sénégal daf si gagné surtout bu demee ba coowal pétrole ak gaz bëgg a yee fitna ci réew mi parce que gis nañ li fi jotoon am ci affaire Frank Timis boobu ak euh, draco euh, président Abdoul Macky Sall mu di euh, Alioune Sall bu ñu demee ba coowal pétrole ñëwaat recette bi toll ci 700 milliards par an est-ce que loolu du du tee xel. xam nga moi je quelqu'un de très damay xaw a moytu man a mm-hmm. c'est-à-dire euh, affaire de recette bi waxu politique la rek c'est-à-dire dafa am ñoo xamante c'est des politiciens yi nga xamante ne ils attisent le feu. Mm-hmm. c'est-à-dire sujet bu am rek dañ siy profiter jaxase xelu askan bi. te yàlla xam na ne man man man de je suis expert si domaine boobu. Mm-hmm. mais nag bu ma gisoon fexe ba démontrer ba dalal sama xel ne ma on a perdu sur ce contrat là je n'hésiterai pas à dire qu'ils ont fait n'importe quoi mais nii nii je visibilité sur ça li may ñaan daal ñi nga xamante ne ñoo ñuy jiite ñu am yërmande ci askan bi te bu ñuy signé ay contrat bu ñu ci xool seen i personnel dañ xool liy jariñ askan bi parce que la vie d'un homme c'est très court te ñun ñëpp on a vécu la moitié de notre vie bu dee dañuy layoo ji ak yàlla Euh, violence bi nga xam ne léegi nemmeeku nañ ko ci politique bi mën nañu wax ne que ñi nga xam ne tey ñoo waroon joxe leçon bu bu bu baax nekk euh, des références euh, pour jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo topp ci seen ginnaaw tey ñooy dem assemblée di saagante wala ñuy def ay violence yu nga xam ne mën nañoo wax que dafay dem ba kenn xamatul Sénégal ci man réew la ñu nekk comme ni ko ñëpp di sampé ab laaj ci man réew la ñu nekk léegi par rapport ak violence yi nga xam ne moom la ñuy faral di gis Sénégal démb maa ngi gis benn arrêté bu jigee ci ministre de l'intérieur mu di Antoine Diome lépp loo xam ne arme daal dina ñu koy euh, dakkal ci réewum Sénégal fii ak deux mois euh, lu ko waral mooy peut-être ci ni ko nit ñi jàppee mu di campagne yi ñuy dëgmal euh, donc bu fekkee ne que loolu amul amaana li fi amoon ci ay jamono mën na amaat est-ce que tey jii bu ñu demee bay waajal ay ay élection ñuy ñuy ñuy tere ay arm donc Sénégal léegi ban taxawaay la taxawee wala ci ban position la ñu nekk actuellement. Bon, je pense que c'est des mesures préventives et les mesures préventives, moom chaque fois c'est à saluer. Mhm. C'est à saluer euh, ba ñu réeree mbir ne il y a quelques mois on a frôlé le pire hmm, des cas de violence extrême yoo xamante ne mosuñu ko gis ci histoire politique mhm. <laughs> donc man ci les gens euh, def ay anticipation dans la possibilité de violence et man je salue je suis pas un politicien bi nga xamante ne damay ñëw di sànni xeer ku ma neex non non non et puis il faut que les gens comprennent que la violence c'est pas seulement du côté du pouvoir. Mm-hmm. les opposants ñoo gën si am na ñoo xam ñoo mais violence verbale dafa am. Mhm. violence verbale mooy jur violence physique sax. absolument mhm. mais les mais les ñooy saaga da nga gis ko xam day taxaw saaga nday Macky mhm. est-ce que du respect. léegi mbokkam yeeg yooyu bu ñu def violence après ñu ne non c'est l'État qui fait. les activistes en même il faut que les gens soient disciplinés surtout les hommes politiques qui incarnent le renouveau politique. c'est-à-dire mënoo ñëw ci indiscipline nga taxaw di saaga papa jaamu te jeune politique comme ñun ñun nag dañu bëgg a def politique bi nga xamante ne on se respecte mutuellement nañu valoriser nos compétences ñu wax si xam-xam moo gën ñuy saaga papa jàmm parce que fi saaga sa papa wala sa yaay da ngay nga xamante ne ñooy incarner le renouveau politique si dëkk bi laa je vais pas citer de nom mais ñoo gën a indiscipliné parce que chaque jour ñu taxaw saaga président de la république saaga ñeneen ak ñeneen ku nekkul si opposition bi ñu ne la sàcc nga mhm. te pourtant ñoom ñu nekk góor ñu nekk noble ñeneen ñi kuñ ci lañ batoon say mbir si loo xamante ne dafa lëndëm mhm. que les gens c'est-à-dire les gens sont de comprendre que dafa ñoo xamante ne dañuy manipuler askan bi te lool ça suffit. dem maa ngi gis Assane mais Assane Diouf tey bu dee ba am nu muy waxee si si si ñenn ñi. il a il a compris beaucoup de choses. Mm-hmm. la plupart des gens yi nga xamante ne dañuy ñëw di taxaw si opposition bi di jéem a jaay ay valeurs c'est faux. amuñu yenn compétence yi amuñu yenn valeurs yi dañuy nax manipuler askan bi à travers des bonnes communication di wane incarné si kaw loo xamante ne dans la théorie dans la pratique ils pire que les gens yi nga xamante ne d'habitude moom la ñuy du doigt. présidentielle yi ñu passé si je ne me pas àndoon nga ak Sonko pour liggéey ak moom. dañ ko jàppale woon rek te yàlla. tax <laughs> c'est euh, dafa mel ni yéen ñaar divorce dafa am seen diggante de. non Sonko c'est pas mon ami mosuñu gisante. dañ daje di waxtaan mu sollicité ma quand même woo ma téléphone jàppale ma ma ne ko dinaa la jàppale c'est aussi simple que ça. parce xam na ne am nga et euh, comme, comme, comme toute relation, soit ça conduit, soit ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est aux arrêts. Et puis on assume. Et puis nous, nous politique, sont commencé le politique. Nous mm-hmm. dem si élection locale, sont mi ngi doon liggéey fële amul ambition Sénégal. Ñun ñu am ambition Parcelles Assainies. Kon ànd Sonko ñàkk ànd Sonko suñu objectif mooy euh, réaliser notre ambition pour les Parcelles Assainies. Pare waatoo aussi pour jàppale ko ci leneen. non ñun on est des musulmans on n'est pas rancunier mais nit euh, e li comme li ñuy wax rek euh, on va un jour peut-être se retrouver au sommet Mm-hmm. bu ñu retrouvé au sommet moom. sommet bi fan la assemblée la wala wala présidentielle la wala kii palais de la république du moins wala fan mooy sommet bi. non foofu sax sori na juste après les élections yi rek on va se mettre autour d'une table sûrement ku nekk xam kan mooy kan. d'accord parce qu'on va faire très mal au Parcelles Assainies. Mm-hmm. dañuy gagner élection yi et puis voilà Parcelles Assainies c'est la plus grande commune du Sénégal qui veut gagner le Sénégal doit discuter avec les gens bi muy doxalee. ça dépend si lan ngay wax système c'est-à-dire xam nga réew moom dafa bëri ay bànqaas c'est-à-dire mën na dox fii bañ a dox fii par exemple mën nañu wax. non président moom euh, ndaka jekk itam ci bànqaas yëpp lañ koy critiquer man dama naan que Sénégal gisuñu daraam loo xam ne def na ko ci lu baax ci lépp lu muy mën di def parce que gis nañ fi terre bi nga xam ne sax war nañ ko inaugurer le 27 bi nee nañ que terre bi amulu fi Sénégal njëriñ du woon moment bi la ñu waroon indi terre bi parce que nit ñi soxla nañ leneen lu ëpp fulla que terre bi. foofu nag man la différence je suis un peu différent des hommes politiques du pouvoir aussi tu tu valides tout mhm. le terre je suis pas d'accord c'est n'importe quoi dañu yàq suñu xaalis foofu dañu juum nit day juum mais tey boo demee si projet BRT bi c'est un excellent projet si parce que tey booy xëy di liggéey di nga gis nit ñi nit coono bi ñuy am pour am ay oto dem mhm. mais le BRT day ñëw euh, euh, yokk suñu économie parce que en terme de de mobilité urbaine dafa am solo mhm. tey boo demee si le projet de Fonds Ross là les lampadaires solaires moo ko rafetluwul mais les ponts yi nga xamante ne c'est les autoponts les 16 autoponts 19 autoponts yi ñu Sénégal. Hmm. mais c'est à saluer. léegi nag après on dira que ça n'a ça ça n'a pas marché ça ça n'a marché niveau de corruption si dëkk bi yaatu na terre bi projet Fantos la baaxul. Hmm. mais ba à Diamniadio tu vas te rendre compte que mais c'est une nouvelle ville qui est en train de de naître là-bas. c'est projet que les gens arrêtent de tromper les gens bi di dem yeneen dëkk. gis nga boo jógee ci sous-région bi nga wàcc ci aéroport Sénégal bi nga dugg ci dëkk bi nga xam ne Sénégal tane na et puis à un moment donné boo defee sam reñ ba pare ci pousse nga jox keneen mu mu gérer. ci terre bi dañuy juum donc yow tey li nga xam ne moom moo di li ñu dugal ci teer bi. bu doon sa gis-gis wala yow yaa yor projet boobu fan nga koy dañoo réeral suñu xaalis fan nga koy dugal <laughs> ah fan nga koy dugal man moom dans ma conception de la du développement mm-hmm. dama gëm ne le potentiel que le le Sénégal a en termes de terre arable c'est-à-dire fi nga xamante ne mën nañ fa investir c'est-à-dire mm-hmm. investir ci agriculture dans la vallée mm-hmm. mais combien de de tonnes de de riz la ñuy la ñuy importer par année mën nañ ko bay fii nii à condition que ndaw yi ndaw yi ñu orienté leen ci yooyu dem aménager la vallée mais c' est des mille nee nañ cinq cent milliards mille cinq cent milliards boo aménagé vallée bi man mii sax bu ñu ma yóbboon ma dem bay ceeb parce que ñun ñëpp ci entreprise yi ñuy def xaalis la wut. Mm-hmm. mais il faut que les le le, le cultivateur il, fait de la culture pour se nourrir. Mm -hmm. mais l' industrie la am ñu dem si transformation bi et puis ñu ñu impliqué comme le modèle mouride. Euh, famille religieuse yi ci économie yooyu parce que ñooñu boo leen financé nañ la main nga xamante ne mën nañ béy ñoom suñu autosuffisance alimentaire en terme de riz en terme de tel tel c'est comme ça on développe un pays après nag des transformations secteur industriel bi ñoo suivre tu de l'emploi et puis terre bi du ñëpp ñoo ci mën a bénéficier wu parce que non seulement que du secteur yëpp la mën a mën a jaar trajet bi du secteur yëpp la mën a dem tey jii man mënuma jógee parcelle dem di jëli terre bi dafay xaw sori mais tarif yi aussi ci Euh, président Macky dafa jékki-jékki yëg doolam ne il faut ma def lu kenn deful. est-ce que du lu muy dem ay Dubaay yooyu. noonu imagination yooyu di ñëw si looloo ko dal <laughs> moom laa la dafa juum. Sénégal mais li ñuy financé si terre bi nga defaroon ko euh, euh, comment le chemin de fer nit ñi di si dugg nga nga nga nga moderniser un peu le train. mais bu boobaa kuy dem nga dugg si train bi day gën a baax. Mm-hmm. c'est-à-dire et ci ci ci ci da ngay da ngay defaat beneen chaîne de valeur. exploité mm-hmm. boo xamante ne mu ngi ko exploité entre la Casamance ainsi de c'est ça qui est plus opportun loolu moo gën a mën a yombal. dem dikki bi mm-hmm. terre bi moom prestige la woon mais baaxul si xaalis bu yàqu la amul njariñ parce que minorité moo fay jaar ñi dëkk fële ainsi de bi dafa gàtt mais quand même comme teer bi baaxul <laughs> loolu la ñu waxee comme yeneen ak yeneen baax na ñun nekk ñu comme gars nga xamante ne dañuy ñëw rek di wax lu leen neex dara baax am na lu fi baax parce que Sénégal jàmm am na fi bu ñu xëyee dañuy lekk dañuy naan boo demee Guinée ay wàccee ay militaire ay arme la gars yi yor mm-hmm. c'est-à-dire guddi bu jotee da ngay dem tëddi par force mais ñun fii ñu ngi en sécurité qu'est-ce que les gens veulent que chacun respecte chacun ku nekk ku respecté sa baay nga wax baayu jàmbur lu normal ainsi de suite et puis Sénégal jëm kanam. d' léegi dañuy jeexale li nga xam ne moom moo di émission bi ak euh, actualité yi nga xam ne peut-être mën nañu wax que ay scandale euh, yi ñuy nemmeeku ci yenn sociétés yi maanaam détournement yi xaalis yi nga xam ne dafay takk ba boo ko déggee da ngay tiit ay milliards rek ngay dégg poste finance. trésor trésor kii soog a ñëw Sarr soog a ñëw milliard milliard milliard rek ngay dégg donc dama naan que milliards yi est-ce que man affaire bi dafa dem ba jaaxal ma en fait ndaka la nit mën a demee ci benn société di liggéey détourné milliards yu toll nii donc yow sa gis-gis booy dégg genre affaire yu mel noonu lan la lay def wala lan nga yaakaar ne que moo war yi ci société yi. crise des valeurs rek crise des valeurs parce que xam nga sàcc moom sàcc la rek sàcc kenn du ko peut-être euh, ñu bañ la inculquer ay valeurs yoo xamante tey boo gisee loo xamante du sa alal di ko rus a jël même bu fekkee yow rek fa ne sa sa voix intérieure ta conscience qui te dit que ça c'est pas bon léegi nag après gëm yàlla doog si ñëw. Mm-hmm. parce que boo amul diine aussi tu tu te gênes pas pour faire certaines choses boo boolee valeurs yi ak diine bi loolu la Sénégal manqué léegi parce que déglootuñu mag ñi mm-hmm. maintenant. sàcc moom mën na nekk sàcc kuy sàcc cent mille euh, euh, cent franc sàcc nga kuy sàcc cent mille sàcc nga kuy sàcc milliard sàcc nga. ñoom ñëpp ñoo yem àtte rek sàcc yi ñu ngi si état bi ñu ngi si opposition bi. Mm. c'est-à-dire la société qui est configurée comme ça mais la preuve ni ngay déggee ne ñee ñoo nekk fi milliards nekk si ay la ñuy sàcc. Mm. ko xamante ne daw nag deux cent soixante cinq mille passif. Mm. si si affaire kii euh, nu mu collecte de fonds yi ñu def. mais c'est des y a des voleurs partout nañ defaraat askan bi nit ñi am diine déglu mag ñi. ñu xam ne sàcc yi fépp lañ ne société bi moo demee noonu ku yaakaar ne yow ñi ngay àndal yéen a baax rek yaa ngi nax sa bopp. mais d' accord léegi dañuy ñëwaat ci beneen question parce que dafa mel ni que dafa am loo defaat sama bopp mandataire Pastef Matam bi nga xam ne eh, moom moo sàccoon dossier yi daw tamit. waaw ah. président Macky Sall recevoir ko ndax loolu rafetlu nga ko. bon en fait euh, man nu ma ko analyser seen est une analyse bizarre. Mm-hmm. man je vois des gens yoo xamante ne day jóge si affaire ñu defal leen fa lu ne mais si. Pastef lañ dem si beneen parti mais ñooñu duñu ay mandataire aussi dawuñu ak ak ak ay kii. moom laay wax c'est-à-dire est-ce que Macky Sall mandataire la recevoir wala personne man waxuma mandataire bi. waa ñoom c'est-à-dire damay daf ñuy réconforter dans ce qu'on dit ce qu'on dit mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Pastef ils sont pas plus patriotes que les autres Sénégalais. Mm-hmm. kooku exemple la. Ousmane Sonko wax na ko récemment c'est-à-dire quand on parle di critiquer nit ñi dañuy foog ne dañuy critiquer pour critiquer ñun dañu nekk ay nitu dëgg bëgg sax si dëgg. man def voilà ci dëgg boobu des fois man damay am problème sax yow pour classer la fan nga bokk pouvoir wala opposition. si dëgg bi laa bokk ak Parcelles Assainies dëgg ak Parcelles Assainies bu nekkee man Barthélémy Dias c'est mon ami grand Ousmane Sonko moom laa jàppale moom su ma jàppale pouvoir. mais bu ñu ci moment boobu xam nga en fait mooy li ma la tey nekk ma mu nekk ma foofu xaw ma lu mu xalaat ak ses motivations xaw ma mm. pour les raisons pour lesquelles la ko recevoir ñuy wax naan ay enveloppe boobu xaalis si ne mais mën na am du xaalis c'est-à-dire pourquoi nit ñi di wax rek ñu leen di gëm mais moom après justifié wu na nee na xaalis la mais. ci leneen la ko Jibril Ngom. ah man na xaalis la joxee te moom mi ngi biir palais te ku ne xam ne palais boo fay dugg daa am noo fay duggee palais du n'importe qui moo fay dugg wala du n'importe quoi ngay yor. Mhm. loolu tamit loolu tamit dafay fay man mhm. maay président Macky Sall du ma ko recevoir. Hmm? peut tamit je sais pas xam nga position moom tey fi nga nekkee ak fi ngay waxee mën na bañ a bokk mais man bu nekkoon man la fii ma toll nii du ma boobu. du ma ko recevoir sax du moment boobu ak beneen moment c'est-à-dire mën naa bàyyi ba élection yi passé peut-être bu nekkee dafa ma yóbbu militer son mais na parce que APR am na ñoo xamante ne tey guddeeg bëccëg Macky Sall la ñu noyyate mosu ñu ko gis. ñoo gënoon mérité loolu alors pourquoi recevoir un quelqu'un boo xamante ne euh, anti valeur la. incarné si Sénégal nga ñëw magnifier ko yóbbu ko palais jox ko xaalis c'est n'importe quoi. mais nag aussi voilà loolu la euh, jàpp naa ne daal bu nekkoon man du ma ko def et puis euh, ñoo nga xamante ne daal li ñu incarné baaxul waruñu leen exposé nit ñi def ko référence. d' accord léegi jeex na émission bi euh, jeex na donc da ngay jeexale ak li nga xam ne moom moo di le 23 janvier 2022 incha allah qu' est ce que vous préparez wala ci liggéey bi ngeen nekk actuellement nii. pour mën a waajal seen i élection bu ko defee ñu tëjee ko émission bi. waa ah, di di wax rek de parcelles waaye ñun lépp lu ñuy def pour Parcelles Assainies dañuy bàyyi suñu liggéey bàyyi suñuy soxna jël suñuy temps quelque fois sax suñuy opportunités yi am pour am suñu koom-koom bopp dañ koy tegee ne pour servir les Parcelles Assainies ñëw mm-hmm. ñëw pour nous servir des Parcelles Assainies jàpp nañ ne Parcelles Assainies li ñu jot a dund si 14 ans yi ñun ñoo ko dundal suñu bopp parce que suñuy sëriñ li ñuy gis ñuy ku siy wasin mënoo wasine Parcelles Assainies bu amee complication dañ lay rawale suñu artistes yi amuñu sant socio culturel bi ñu exprimé woo mm-hmm. suñu ñu fayal seen doom jàng école municipale bi tëj nañ ko Parcelles Assainies bu tawee maara day taali assainissement bi baaxul parce que même bu nekkee curage bi nga xamante ne avant période pluvieuse bi dañ ko war a def duñ ko def le maire dafa démissionné c'est-à-dire il a démissionné ku démissionné nag dañ lay génnee par la petite porte moo ñu dem élection dóor ko ba mu tëdd jëlee ko fi ne ko dama nga toog PCA bu ko defee nag bu liggéeyalee Macky Sall mu teg ko kon ne ko bu ko liggéeyal mu dàq ko parce que bu defee 14 ans dañ jox chance aux jeunes des jeunes yoo xamante ne si xam-xam lañ ko teg si compétence mooy jeunes yi nga xamante ne ñoo constitué la liste avec. Mhm. parce que avec man ngay gis rek ci si jëmm mais ñi nga xamante ne ñooy nekk autour de moi ñoom ëpp compétence peut-être man leen délégué rek mooy ñëw di wax ñi ñu fa ne man maa xam man maa mën mais man maa si gën a tuuti xam-xam. Mhm. di remercier au passage ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm le projet ñu bokk. si biir liste bi muy d' abord président Abdou Wahab Sène président de aux élections locales mais dafa ñëw ne ma kaa ñu ànd ñu doole ñu dooleel la nga jël mairie bi ñu liggéeyal Parcelles Assainies di remercier euh, le président Moustapha Cissé Sénégal autrement muy un jeune boo xamante ne aussi euh, c'est une valeur sûre de ce pays là mm-hmm. di remercier euh, Abdou Karim Ngom bi nga xamante ne j'aime citer son exemple parce que c'était le responsable des jeunesses khalifistes au Parcelles Assainies mais bu mu gisee ne lii waruñu tànnal démarche bi Yewwi Askan bi def neexu ko dafa ñëw bàyyi ñëw bokk si suñu cause di remercier ki nga xamante ne c'est le plus humble de notre groupe président mouvement la moom tamit ligue des associations et mouvement des Parcelles Assainies maître Touré Babou Baye Touré Babou la tudd koo xamante ne bu ñëwee sax di taxaw sax si position leader du xëccoo du def dara c'est-à-dire c'est un de terrain mm-hmm. moom nag mention spéciale à maître Touré Babou dégg nag di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoom lañ àndal si si liggéey bi waa ma réaction yi suñu famille waa mouvement air pur Sénégal autrement di wax ne parcelle waay mm-hmm. vous avez un rendez-vous avec l'histoire chacun vous invitons mooy ñu réécrire les pages de l'histoire politique des Parcelles ni à partir du 23 janvier incha allah parce que eh, li nar a xew Parcelles Assainies dañu dafa nara nekk loo xamante ne c'est une révolution des jeunes issus du terroir jàngee fii tekkee fi defee fi lépp si gox bi ñu jox leen dëkk bi ñu ñëw taxaw brandir euh, le drapeau des Parcelles Assainies di nuyu waa Parcelles Assainies di leen wax na daal on est confiant et puis on n'a pas peur parce que est sûr de gagner merci beaucoup. merci beaucoup fidèle internaute euh, Sunugal 24 euh, merci beaucoup encore une fois di leen euh, jaajëfalaat bu baax a baax ci topp gi ngeen ñuy topp tànneef gi ak kóolute gi goo Faye laa dalaloon tey mu doon ndaw loo xam ne moom dafa bëgg jël li nga xam ne moom moo di mairie bu Parcelles Assainies ginnaaw bu mu bokkee ci ñi nga xam ne ràññee nañu leen ñuy liggéeyal seen gox di parcelle ci lépp loo xam ne rek moom moo di bëgg-bëggu askanu parcelle waaye itam ba tam amaana nee xam ne moom moo di réew mi ndaxte bu jógee ci meeru parcelle itam euh, mën naa jàpp ne que rek euh, réew mi euh, parcelle dafa bokk ci biir réew mi waaye itam réew mi moo ëmb parcelle ëmb moo nekkoon ci technique bi cant ak ngërëm daf koy ñeel di leen jox dig daje prochainement ci beneen invité de la rédaction ci biir suñu Sunugal ci jàngeen jëf